Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également d'y baisser les commentaires. Toujours un plaisir, gars, renouvelé, de partager avec vous informations et de également, des partager vidéo, mais aussi des likes. Mbokk Sénégalais, fait fu la mënti hein, 14 régions du Sénégal, partout dans le monde, ñu les déjà di jaajëfal, ñi également ci l'hôpital et yi ci kër yi, duñ leen mës a ak ñi ci prison yi, di leen ñaanal bu baax a di aussi ñi dëddu àdduna ñeen di wax yàlla suñu borom xar leen àjjana fiir daw si, on avance ensemble dans la magie de eSport TV. Actualité oblige, gars mooy crépin et son message à Aliou Cissé waxtaanee également ki nga xam Antoine Griezmann mi nga xam Sénégal ci favori par rapport li nga xam coupe du monde mom dafa jox ay quatre favoris am dinañ ci waxtan waxtan aussi li nga xam moy scandale bi au niveau du euh, Gabon ak aussi le président de la fédération foofu noonu ak FIFA mi nga xam ñu ko ci tuddu mais d'abord VAR bi encore une fois comme je dis gars donc le jeu concours commence il y a de nouvelles rubriques de nouvelles choses yo xam ñi nga ñëw di remercier gars yi ci nga xam ne jox seen suggestion entre autres soxna yi ba légui ma ngi leen di déglu ah, donc finalement dafa mel dama koy bàyyi déggoo leen ba léegi ah lan ngeen bëgg ñu teg ko comme euh, jeu par rapport ak yéen ah loolu la léegi aussi gars yi ñi nga xam ne ay sportifs lañ ah jeunes yeeg yooyu gars yi lii lu mu leen di fàttali ah am na ñoo xam ne waaye ba li lii moom seen passion la quoi donc les sportifs ñi nga xam ne bu ñu seetaanul match bu ñu nekkul ci ci jàng bi wala ci dóorwaar bi ñu ngi si lii ah nekk seen coin lii gars yi lan la leen di fàttali ku nekk na ci génn anecdote am et tout mais également li nga xam ne mooy boxe ah champion du monde poids lourd ah, ki nga xam ne mooy Tyson Fury ak Dylan euh, Dylan White donc tey lañ doon def seen i pesée ah ñoom ñaar ñu war a daje pour le titre ah de euh, meilleur boxeur du monde hein, poids lourd donc ki est xam mooy Tyson Fury kenn d'autre ko présenter hein. ah provocateur là. moom sax nee na après de bëgg dem MMA si Dayek Francis Ngannou qui aussi quelqu'un d'autre ko Ibrahim hein, Ibrahima le grand Ibrahima Konaté le joueur de la Guinée un ami de sa mais aussi un frère pour le Sénégal et pour la Guinée moom aussi des fêté li nga xam ne anniversaire ñu joyeux anniversaire mais aussi un autre Sénégalais, plus africain plutôt boo xam ne moom wane na boppam foofu non te Chelsea Obi Mikel donc une légende du côté des Super Eagles Nigeria aussi au niveau de Chelsea l'exceptionnel exceptionnel Obi Mikel aussi qui fête son anniversaire joyeux anniversaire aussi à Obi Mikel guy mais même une légende aujourd'hui Patrick Vieira momo ci wax Patrick Vieira dañ ko laaj ne ko ci joueur yi nek ci pas of Fame yëpp ni ñuy ci Hall of Fame bi tey boo amoon ko xam mom ngay tan ne mom nga bëgg jouer kan lay deux, mu ne si aujourd'hui il avait à choisir une personne avec qui il devait jouer ce serait donc euh, ki nga xamne moy donc Paul Scholes parce que pour mom Paul Scholes actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs yo xamne mom la am pour a aussi jëm ci du conférence conférence league bi hein donc il UEFA jël une décision donc nenañ VAR dina teew ci demi-finale conférence league yi donc parce que quart de finale yi amul woon VAR et tout donc là ils ont pris la décision que ni conférence league demi-finale bi finale sera bien entendu présente Lol la wax ki nga également di Marcelinho Marcelinho gaï mom nak lañ futur successeur ki nga xamné donc moy Luis Enrique au niveau de la Roja Né né après coupe du monde bi Luis Enrique day jógee ci Espagne donc Marcelinho mom lañu gis ce sera le futur successeur de Luis Enrique au niveau de l'Espagne mais aussi hein, le président de l'Olympique lyonnais il n'est plus à présenter mom actuellement nak Lyon ay club yu ci ay plutôt ay franchise yu ci mel né yu États-Unis ak France ñom daal ñuy proposer ak Europe yenen gox yi bok ñu proposer pour dadi di jëndi Olympique Lyonnais parce que fi Lyon dafa nek ci ay difficultés mais ñom ils sont placés parce que le président aussi est en euh, en comment dire hein, en perte de vitesse ki ngeen gis aussi di Maxence Cacré Maxence Cacré wax naa ko démb donc l'Olympique Lyonnais dañ ko jël boole ko si nga xamné mom moy mooy cadre hein donc ñom dañ ko proposer contrat aussi ni déwén il peut être le capitaine de l'équipe de de Lyon fi nak Milan AC ñoo bëgg a carte gi dañ ko defal proposition moo tax Cacré mi ngi réfléchir même bu féké né mom neen dafa bëgg tok ci Olympique Lyonnais ki aussi Niko Kovac Niko Kovac l'ancien entraîneur de Crépin Diatta du côté de Monaco mom gannaaw nga xam ne Monaco la ko dàq entraîne na aussi Bayern de Munich fi mu ne nii ay club yu mag a mag a mag ñu ngi koy tudd donc y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui et moom aussi il est prêt à entraîner de nouveau si benn club aussi ki ngeen di gis nii l'entraîneur de la Juventus de Turin donc Allegri moom li mu wax leer nee na actuellement donc il confirme hein. gars yi doon wax naan day jógee Juve tout nee na l'année prochaine inchallah il sera à la tête hein, donc de la Juventus de Turin parce que moom objectif am mooy déwoon Ligue des Champions mu wone fa boppam Eric Ten Hag na gars yi moom comme que du moment officiellement élire nañ ko li nga xam ne entraîneur Manchester moom na commencé madam? piste ay joueuram notamment au niveau de la défense wax naa leen ko il a un œil sur Kalidou Koulibaly ak yeneen défenseur mais mom fimné ni dal nii jox nañ ko feu vert et mom commencé na sax di consulter yenn joueurs yi pour mën renforcer Manchester United de woon et du côté de Liverpool des de Liverpool yor club moom message bu mag la wax né na ñu doon wax nan daw Thiago Alcantara donc euh, waaw profil am nekkul profil bo xamné mën na évoluer ci Liverpool nga xamné ne yor club nee heureusement ba ñoon du ñu ay entraîneur parce que li wax waxu euh, ndax saxan nag la lol dal la daal wax mom mi di Jürgen Klopp mais aussi wax na ci Naby Keita nee na Naby Keita 2017 lañ ko recruté mais aujourd'hui Naby Keita c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde nee na su nekkee en forme rek kenn mënu ko té et il sait que dina def carrière bu maga maga mag a s'il continue sur cette même dynamique l'ami Naby Keita l'ami et le frère de Sadio Mané mais aussi du côté du Paris Saint-Germain gars hein. Paris Saint-Germain donc euh, ki nga xam moy Navas dem dafa def déclaration ne il faudrait que déwoon solution yi ak affaire yi changé ñu xam kan moy numéro un li ngay waxtaan bi nak tay la ci entraînement bu mom ak Mauricio Pochettino mel ni loolu lañ doon waxtaan gars yi selon les informations de l'équipe moy que ne Navas gars yi Paris Saint-Germain mom lañ bëgg sacrifier mu daal di joggé fofu noonu parce que Donnarumma Roma lañ fas def gardien numéro 1. pendant ce temps également Angel Di Maria nga xam actuellement mi ngi am 34 ans fanweeri attaque ñent wa Juventus de Turin aussi mom lañ def priorité parce que Paris Saint-Germain dañ ñëwoon dañ koy prolonger à la base mois de juin mais finalement d'autres ñu ko prolonger donc on dit que né mom lui il va quitter donc cette équipe du Paris Saint-Germain et hein li nga xam moy faire play financier bi nak nouvelle règle nga xam indi nañ ko lool dina arranger ñi nga moy wa Paris Saint-Germain ndax ñom dañu bëgg prolonger Mbappé et pour parler de Mbappé actuellement nous nañ ah, selon les informations wa Paris Saint-Germain dañ ko jox chèque blanc né ko def ci ce prix même Mbappé nee que problème mu yeneen rumeur aussi ñu ngi naan Mbappé dafa laaj ay exigence yu metti ak Real de Madrid mais rien ne sûr am gars yi dañuy wax fi wax fi. mais on en sera quelque chose de très clair Rudiger aussi gars wax naa ko Real da ko bëgg mais kiko jox proposition bi gëna cher bi gëna a mag Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain mo tek ta ci table xaalis bi weex tal tal tal tal tal moo tax instant yi bi ñu hésiter di xool fa la wara mëna dem Rich James également waxon na len ko Ancelotti dafa intéressé Aux joueurs joueur bi Real Madrid également ils sont prêts à faire une proposition de 70 millions d'euros pour Rich James dal di ñew fa nga xamné moy du côté de la Casa Blanca Rich James le joueur de Chelsea donc rien n'est sûr Bataille mercato bi ren war dina gëna metti notamment bu ñu sax ci coupe du monde bi et ki nga xamné nak mom donc euh, Mohamed Salah Mohamed Salah par rapport aux prolongations bon euh, il veut rester au niveau du du de Liverpool mais dafa am yenn condition yo xamné ne mënu ko wax mais son rêve ce serait de rester mais du Mohamed mom mënu actualité kese ñi war waxtaan ñi ngi waxtaan seen biir loolu da la wax kii aussi di Robert Lewandowski Julian Nagelsmann moom confirmé na nee na euh, ki nga xam ne mooy Lewandowski du jugee euh, euh, Bayern de Munich donc déwén day nekk Bayern de Munich mais rien n'est clair parce que moom moo ko en tant qu'entraîneur mais l'agent de Lewandowski il n'a rien dit parce qu'actuellement Lewandowski est en discussion avec beaucoup de clubs yoo xam ne ñu ngi koy courtiser comme Paris Saint-Germain comme Barcelone entre autres qui également di Sabitzer Sabitzer nag moom ki nga xam ne mooy Nagelsmann moo ko indi woon Bayern mais moom dafa joteeg Nagelsmann ne Nagelsmann lim ko waxoon nag yëpp amul parce que léegi joué tul sax moo tax fi ne ni Bayern nee na am 15 millions dal bo beugé mën nañ la jaay Sabitzer donc Sabitzer il est sur la liste des joueurs à transférer du côté du Bayern ki ngeen gis na gars le président de la fédération du Gabon mom nak dañ ko top ci walum harcèlement sexuel yu am fofu noonu dans le football gabonais ba taxone nak mu waroon dem def benn audition rek ko audition rek mais bamou démé gaay yi dañ ko defal mandat de dépôt lool nak jur coow parce que nee FIFA yëgoon na problème yu ni mel mais ñom dañ ci euh, dañ ko tànqamlu won lool nak tax fi ñu ci tuddu FIFA euh, Crépin Diata la bonne nouvelle gars yi ñu doon laaj Crépin Diata comme Crépin Diata waxoon na la ay temps de dafa nekkoon euh, phase de réathlétisation manam si machine yi la nekkoon léegi nag tey la commencé wat laal la commencé semaine bi di laal ki nga ne qui donne un message fort à Lucie. parce que aujourd'hui gars buñu gaaw on a des Sofiane Diop on a des Iliman Ndiaye on a beaucoup de gens yo xamné ne mën nañ ñëw équipe nationale du Sénégal mais il ne faut jamais gars Nous ñu faté Krépin Diatta Krépin Diatta élu mm, parmi les meilleurs jeunes joueurs de la CAN 2019 bi mu joué Krépin Diatta bi mu Sénégal ba il apporte beaucoup offensivement et gis ngeen aussi complicité bi am dans le jeu avec Sadio Mané et tout et Krépin Diatta au meilleur de sa forme bu amé entraînement am physique Krépin Diatta est un bon faire valoir pour l'équipe nationale du Sénégal man li ma si naqar rek moy que né suma ma mu Coupe d'Afrique bi passé parce que il méritait de la Coupe d'Afrique parce que Krépin Diatta beaucoup na ci nga avec Alucissé, ils ont progressé mais aussi tarné Sénégal et benn stade bi qui revient donc et aujourd'hui le message est clair Krépin son objectif c'est de jouer la Coupe du Monde loolu c'est également de jouer les éliminatoires pour gagner un temps de jeu préparer aussi match amicaux yi Sénégal d'Akoy am et aujourd'hui Alucissé est conscient qu'il peut compter sur Krépin donc aujourd'hui Alucissé euh, a une panoplie de choix hein, un large choix embarras du choix par rapport à ñi Tarné pour Nudem, concocté qui équipe nationale du Sénégal mais heureusement heureusement, comme on dit, un mal ne nuit pas beaucoup. En plus, un bien hein, ne, ne, nuit pas forcément. Même vous faites comme on dit, hein, c'est un mal pour un bien, comme c'est un bien pour un mal. On ne sait pas. En tout cas, ce que Simon Crépin Diata aujourd'hui, c'est un bien pour l'équipe nationale du Sénégal. Il fait énormément de bien à l'équipe nationale du Sénégal. Et moi, je suis convaincu à 1000% que bouveré n'est que condition que Crépin Diata, il sera dans la liste d'Alucissé pour la route du mondial. Qui ramène également mon mondial, oui, qui dit Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, moi, de durer quatre favoris, demi-finale, finale. Donc, moi, France ci boppam fi muy joué wax Brésil wax ci Argentine wax ci Espagne donc am na équipe de mu si ay Allemagne tout mom gisul aussi Sénégal sorti ci compétition même si bu fekké ni Griezmann mom néna bon chaque année day am surprise et tout mais lui il ne voit pas euh, des équipes africaines aller en demi-finale et je pense qu'aujourd'hui il a donné son point de vue qui est acceptable qui est compréhensible Griezmann mi nga xamné actuellement donc dafa am sax ay problèmes au niveau de l'Atlético de Madrid parce que plus de 12, depuis janvier le gëj du depuis janvier la la France est parmi les favorites nous sommes nee pour nous doubler ko dina parce que équipe bi la coupe du monde c'est rare c'est rare on se rappelle également du Brésil avec les Garrincha et autres donc aujourd'hui en tout cas le Sénégal ne fait pas partie des favoris et pour moi c'est une très bonne chose hein bu ñu bu ñu état nañ le Sénégal est un grand outsider je pense que ce genre de message le Sénégal en a besoin parce que là le monde motivé motivé la en tout cas les matchs sont là le Sénégal wax naa voulez donner l'information en primeur ce matin. Donc, match amicaux Angleterre, Argentine, Pologne, nous avons fait le tout pour jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. En tout cas, guy, c'était les informations. Toujours un plaisir de vous servir. Durez les scènes avis, durez les scènes khalat. Dia game,